cant lool. waaw ndax ndax. di dim ñoo président président Macky mi fi nekk.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 dimbali na ma ci sama taxawaay dimbali na ma ci sama taxawaay kam kàttan lu rek sëñ tubaa tax lu ma defal rek sëñ tubaa tax waaye nag dama koy gën a bàyyi ak sëñ tubaa waaye dama koy gën a bàyyi ak sëñ tubaa te xam ne du ko rëcc mukk te lii lii lii alhamdulilahi rabbil alamin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 nan nan nan nan delloo suñu suñu bopp lépp. nan doon lépp lépp lépp lépp nan ko nan ko jël jox ko sëñ Tuubaa tey ak ëllëg. suñu lépp nan ko fab lépp lépp lépp delloo ko sëñ Tuubaa tey ak ëllëg.